nag suñu premier numéro ñoo ngi ko jagleen entreprise bi ñuy wax Qnet boobu ak léegi ñoo ngi ciy dégg ay wax yu bëree bari ñenn ñi ñoo ngi naan Qnet arnaque la ñenn ñi ñoo ngi ciy gis seen bopp te boobu ba léegi aussi dégguñu kenn koo xamante ne moo ngi nekk représentant indépendant ci Qnet bu si prononcé wu léegi nag dañuy tàllal micro bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir entreprise bi di ci liggéey bu ko defee ñu mën ñoo indil ay leeral ci entreprise bi nga xamante ne moom la ñuy wax Qnet Qnet nag non loolu waxu waxu africain la rek. njaay ak jënd maanaam commerce amul fen koo xamee dañ ko tere lu dul xanaa mu nekk commerce loo xamante ne commerce su drogue wala commerce leneen loo xamante ne dafay maanaam yàq doomu aadama. maanaam ñaari mbir moo am le mal et le bien. c'est un business qui est très puissant. entreprise bu toll ni Qnet mënut a ñëw dugg Sénégal comme nu mu ko neexee. am na ñoo xam ne dañ leen leen présenter du ñu comprendre parce que benn doo wóolu ki indi ki woon plan bi en même temps doo encore comprendre plan bi parce que mosoo pratiquer marketing de réseau. ki nekk produit ki nekk doo ko xaalis. li tax doomu aadama yi di jël yenn yi day fekk nga nekk ko si lu leer. ginnaaw Kounet activité la boo xamante ne mu ngi dem mu ngi évoluer foog mu am ay concurrents. je suis a d'être arnaqué par Pinette. moment bu ñu ma koy présenté wax dëgg yàlla aw ma woon dërëm dërëm ko woon mais ma jël décision bi parce que xam naa dans la vie lépp décision rek la. travers un produit que j'ai acheté aujourd'hui ça m'a permis vraiment de changer niveau de vie. fii su ma neexee semaine prochaine je vais partir en Paris je vais je vais rester là-bas jours jours sans faire avant business bi def na 6 ans yoo xamante ne amoon fi ma tëddee si kaw donc grâce à QNet tey am naa fu mu appartement ba fi ma dëkk boo xamante ne leer na ma ne salarié bu 500 mënu faa dëkk. su ma neexee euh, demain Dubaï laay ndekkee j'en vais naa ci sama kër jël naa ci oto na naa fi Land Cruiser ZXL euh, euh, donc 4x4 am nañ. ay oto macha allah ay oto léegi tuddul ay ndaw ay mag comme man nga xam ne bëggoo tàllal loxo bëggoo tàllal loxo ba nga am fierté doo laaj kenn doo dépend ci kenn bu ci yàlla àndee boo ci duggee moo xam ndaw nga moo xam mag nga nga def effort ya ca war incha allahu daa tedd tout parent va mettre son avant dedans dama dëkkoon fale ci néeg bu xat fale ci Dalifort en même temps léegi yàlla def ma am benn appartement trois chambres salon ci 2016 man ak sama soxna ak sama doom yi ñu nekk de famille. métti naa sama kër léegi. Gambie laa juddoo ñëw mais d'origine guinéen laa ñëw Sénégal. ok ma fekk sama mbokk yëpp lu ñuy def boutique la ñuy def mais dama gis sama papa pendant 40 ans mu ngi si boutique joxu ko dara ma décidé def leneen. ci 2019 fii am naa sama Lexus. doon football avant business bi donc jour boo xamante ne cent franc même amu juróom dañ la koy jëndal amoo looy lekk donc moment boobu lañ ma présenté activité bi nii. problème coopération posé moo tax fi ñëw rek parce dafa am ay saako or yu fi nekk ak ay saako xaalis.